salaamaaleykum ami téléspectateurs yi ñuy seetaan yéen ñi nga xam yéen a safoo ak di faale ñu ñi nga xam ñoom ñooy waaye fi li nga Dakar TV di leen wax ne yéen ngi seen bile émission yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir nag saa su nekk rek dañuy fekk kenn ku ci nekk ca fa nga nekk dal ne la jàpp suñu micro rek daal di fas yéene waxtaan ak yow tey nag ñu dalal fi koo xamante ne nii moom mooy xale bi xew ci jamono te xew xew a xew xale bi nga xam bokkul lu tax ngay bonde mu ne parce que di woy sama baay tax ngay le sant yàlla maa leen di ziar di leen nuyu di kontaan ci set si bi ngeen ma set si fii tey ci studio Mille Mélodies waaw di leen ziar bu baax di nuyu sénégalais yëpp di ziar internet yëpp ñu ñuy seetaan. nga ne yaay le plus jeune la. man man lan laa wax ah gars de maa ngi dégg ñu may wooye ñi le général Faramareen le général des Faramareen ñi na ma caatu Faramareen maa ngi ciy dégg tur yu bari de. yaa ngi ci dégg le plus jeune xaw lan des Faramareen le président xaw ma lan eh, ah, général la dégg de. général de laa dégg gum wala nag ma bëgg jox benn. Ah, ah, <laughs> non ñoom bu ñu ma jox baax na l'essentiel euh, Bambaly xale la ek seen doom la ba tax na sénégalais yi tamit aussi dañ leen di sant bu baax di leen gërëm ak ñu nekk ci diaspora bi. parce que jàppale nañ ma bëgg nañ ma accepté nañ ma te li gën a jafe mooy xam nga nga yëngu ci dara nit ñi nangul ko ba tax na dañu def lu dul sant yàlla rek sant Sénégalais di leen ko delloo niñ ma wooyee nag bëgg naa. kan mooy capitaine bi. capitaine lan. musique ci Faramareen. capitaine musique ci Faramareen ah ku ne xam na ne mooy Thione Seck Papa capitaine bi. Mhm. ci seen génération. ci suñu génération kuy capitaine bi. suñu génération kuy capitaine bi man maay capitaine bi ah Thione Seck ay capitaine bi man maay Thione Seck maay capitaine bi. damay bëgg lii damay bëgg xale bu boolu boppam baat ki ñoom yonent bi ay ci ni lay demee saa su nekk rek ci seen bile émission yaa ngi ci biir ñu dalal ci nag ki nga xamante ne ni xale la di bay waaram tamit ca fa mu nekk waaye tamit di wayli wayli taw li waral loolu mooy kii baayam kuy sa baay ma penda Seck kon way rek la nga war def euh, Bambaly est-ce na ci yow pour nga nekk waykat Euh, benn côté xaw na difficile benn côté tamit aussi euh, méttiwul parce que xam nga boo juddoo nga bokk ci askan boo xam ne macha allah da nga judd fekk ñu ràññi leen ñu def fi lu rafet xam nga sénégalais yi nangul leen ba tax na yow tamit nga ñëw topp ci say tànku baay ci say tànku mag ku ci mel ni suñu mag Wally Ballago Seck ma koy nuyu de passage xam nga benn côté métti na parce que li ñuy wax. ñu naan euh, comme genre tu n'as pas droit à l'erreur xam nga ba tax na lépp looy def rek da ko war a xool surtout boo amee bàyyi yoo xam ne dañ fee liggéey lu jaar yoon lu rafet xam nga yow tamit waroo teg yoon bi daal. xëy na côté boobu lay xaw a méttee rek lépp looy def nga xool ko lépp looy génnee moo xam son wala lu mu ti doon nga xoolaat ko bu baax comme ni ñu ko waxee tu n'as pas droit à l'erreur pour man boo bokkee ci askanu Faramareen waroo def erreur pour man parce que gis nga exemple yu bëri xam nga. benn côté bon loolu la quoi en fait côté boobu noonu moo xaw metti métti côté bi méttiwul mooy xam nga dañoo fekk suñu bàyyi liggéeyal ñu xalal ñu yoon bi xam nga suñu mag waali ñëw tamit eggali ko gën a xàll yoon bi ba tax na ñu bëri tey jii mën naa ne bu ñu bëggee Bambaly Seck c'est à travers Waly Balago Seck wala Thione Seck xam nga wala Mapenda Seck sant yàlla. waaye tamit yàlla dafa dogal am koo xam da ngeen a bokk benn baay duñu duñu ko jël dañ ciy wax muy Mandiaye Seck mu mel ni seen diggante neexul. non man yàlla ñaanuma yàlla am xaj seen euh, sama deret non déedéet déedéet man ñoom ñëpp laa boole jox cër ndaxte mbokk dafa foor et euh, boo amee ay mag da leen di def kilifa xam nga euh, doo leen yeb daal te man yebuma leen ndax bugguma ko ma yeb. kii Bambaly da daw question bi fii amul daw sa mag la. mais bien vrai que sa mag la yéen bokk benn deret mais amoon na problème seen diggante problème bi dafa arrangé wax dëgg yàlla maag moom ah vraiment mosuñu jàkkaarloo ba am problème wala dara wala quoi que ce déggoo li ma la wax yàlla xam na ne boo amoon problème sama digganteek moom bu dee maag moom kese la mosuñu am problème maak moom parce que xam nga moom déjà dafa ma rus moom daf ma rus ba tax na bu may nuyu du ma sax xool billaay wallaay talaay ma ne tamit pare dañu joxante nañ cër xam nga sekk nañ jàmm te ñaanuma yàlla ñu jotee xam nga ma koy ñaanal moom tamit bon vent yàlla na ko yàlla dimbali xam nga loolu rek. waaye kii sa papa di Mapenda Seck di sama papa man parce que yow sama frère nga sa papa sama papa la daf dañ ko mës a invité benn ITV ci Feeling Dakar TV muy wax sa diggante ki nga xam ne moom mooy Mandiaye Seck ni moom sa papa. tey bu fekkoon producteur boo xam ne produire Thione Seck mi magam ñu am benn prise de gueule bu ndaw moom du fa dem wax jooju kon ëmb na ni yéen ñaar am na problème. non déggoo mën a la maag moom du mën a am problème bu desee ci maag moom kese non loolu dama koy gérer mënuñu am problème ndax sama deret la sama mag la moom lu ko neex mën na def lu mu def ma jégal ko ko parce que sama mag la. kon dafa def. non euh, sam papa boo gisee mu def interview boobu dafa bëgg leeral nii rek mbokk ak ni mu fooree dara warul dugg seen diggante xam na nag ku ci nekk ak sa xel fu mu toll man de bu doon man wax dëgg yàlla ah du ma nangu ku ma jaxasee sama deret ba tax na bon am yenn booy yoo xam ne xam nga jël nañu samay quelques produits jox ko ko te moom amaana déggoon na ko xam nga dégg na ne man maa ko ba mu ñëw déglu son yëpp apprécier ne ma son yi nga def nice na ma ne ko. kii bu la jàppee ba bàyyi la mën na la defaral son boo xam ne billaay walaay dina la yóbbu feneen barke alxuraanu karim ma ne ko mën nañ la defaral son boo xam ne dina la yóbbu feneen moo fekk mu ngi doon déglu sama son yi ma ne ko son yi daal laa fi jot a def mu apprécier et tout ça mais xam nga tamit aussi bon bu ñeen duggee suñ diggante jël sama œuvre yi nga xam ne maa maa ko liggéey sonn ci wi sonn ci trop jox la ko nga accepté ko bon du ma je me dis quoi mënoon na bañ a demee noonu. non mënoon na bañ a demee noonu parce que tamit sénégalais yi tamit defuñu sénégalais yi xam nañu su ma taxawee fii ne carrément demeewul noonu dañ naan c'est pas vrai xam nga wax dëgg yàlla mais bon ñun dañuy wax dëgg rek ba tax na mënoon na bañ a demee noonu maanaam xam nga mënoon na bañ a xool deret bi te xam ne kenn warul dugg suñu diggante ñenn ñi nag bu ñu amee benn accrochage bu ndaw yow nga nangu ko dëgg dëgg ci sa tànk man en tant que sa rakk nga mën nga woon mën ma woo sax. ne ma lan mooy problème bi toogal lan mooy problème bi lii ak lii ak laa mais nga seetaan ñu jox la samay son nga way ko génnee nice mais ne comme si comme si de rien n'était bon je me dis que tamit garaawul parce que xam ta xam mbokk wala ku mu munti doon fii yàlla rek a fi nekk ba tax na man yàlla yeneen ti bi laa jiital samay waajur comprendre nga ba tax na man sama lépp daal man bëgguma jote kenn na lépp rafet. te loolu mënu maa yàqal dara ndax Bambaly Seck yàlla dimbali na ko mu ngi studio fii lu ma bëgg liggéey da koy liggéey ndaxte am na entourage boo xam ne macha allah lu ñu bëgg liggéey dañ koy liggéey loolu kon mënuma maa yàqal. mais Bambaly est-ce que xalaatoo ni tamit liñ naan xel puso bu réer la que xale da koy for jariñoo que magit da koy for jariñoo yow en tant que petit frère yow xalaatoo woon woo sa mag ngeen toog ngeen waxtaan. sama mag woo ma de laa gën lañ gën a concevoir man ma woo sama mag. <laughs> mais xale day am xel ka mag waaw moom comme ko xelam foofu la toll mais garaawul amul problème mais l'essentiel duñ ko ko jàppal parce que tamit aussi sama mag la quoi sama mag la yéene ma ko dara lu bon te en plus tamit comme ni nga ko waxee xel moom du xel matul xel du doy xëy na xelam fa la toll mais bon dama koy jàppee ba tey ni mag dama koy jàppee ba tey ni kilifa. noonu rek la. mais kii seen kilifa di Wally Ballago Seck gis nañ ko ci benn euh, je crois que benn euh, am na programme bu mu amoon mu indi la taxaw indi ki nga xam ne moom mooy euh, Mandiaye mu taxaw ni leen yéen ñi man may seen mag. waaw loolu de loolu daf ñuy wan ne rek carrément moom mooy kilifa et ñu xool lépp lu baax li nga xam ne mu ngi koy def ñu topp ci ginnaawam kenn bañ ñoo jaxasee ñu xool li nga xam ne parce que mën naa ne gis nga askanu Faramareen entreprise la. Ah, askanu Faramareen yàlla dimbali nañu loo xam ne amaana ñu bëri buñ ko xamoon nañ ko exploité ñu bëri ñu ko amoon dinañ ko exploité parce que am famille boo xam ne macha allah am na ci ay talent yuy way ba pare nit ñi bëgg leen tey ji loolu mën naa ne entreprise la. ba tax na moom daf ñuy wane rek carrément mbokk rek am solo et moom mooy suñu kilifa xam nga ku ci nekk nga jox cër sa mag ku ci nekk yow mii di mag nga yërëm sa rak noo mais parce que moom mooy sama moom moom sama copain la sama xarit la te en plus borom baax la parce que maa moom dañuy tooñante tout le vraiment maa moom dañuy tooñante rek ba tax na ku baax la vraiment di sama mag di sama xarit te en plus ma bëgg ko ku ma xool xam ne dama koo bëgg vraiment parce que tamit moom dafa doon koo xam ne macha allah euh, dafa def loo xam ne exemple la ci ñun dañu war a xool ci moom xam nga nekk xale bu ndaw nangu liggéey xam nga percé vraiment mag ju baax la quoi wax dëgg yàlla moom sama xarit la moom. dañ lay suivre fële ci Instagram mais dañoo gis ni danga am doom tuddee ko waali ah am naa doom mu tuddee ko Wally moom laa tuddee Wally wala ko teel ma parce que kooku xam nga mën naa ne munuma ko remercier sama mag la sama mag ju baax la ba tax na macha allah xam nga comme ni ma la ko waxee rek ñu bëri tey jii bu ñu découvrir Bambaly excuse-moi euh, ñu bëri tey jii bu ñu découvrir Bambaly Seck c'est à travers mën naa ne Wally Balago Seck. parce que moom tey jii ñu bëri ñu ngi naan ay waay xoolal kii nu mu nuroo ak moom ay eh, xoolal kii léeg-léeg buy woy da ngay mel ne waa da ngay dégg xam nga ñi naan coon ñi laay kii c'est la famille daal xam nga ba tax na ba ma yooyu sama taaw wax dëgg yàlla moom laa santiroon tuddee ko parce que sama mag yoo xam ne dama ko bëgg la vraiment Mm-hmm. ayca ni lay demee saa su nekk rek ci seen uh, bile émission yaa ngi ci biir ànd ci ak uh, waa Feeling Dakar TV mais Bambaly dañuy gis ni fa tubaab fakala macha allah yéen waa famille Faramareen suñu borom dafa am loo xam da koo def ci yéen ndax nee nga entreprise ngeen mais tamit yàlla daf leen a may tarkalla mais est ce que yaa ngi dem ci ay soirée ki nga xam ne moom mooy waale di def première partie mm, moom événement yu mag yi muy def euh, tout récemment rek Esplanade 31 décembre bi maa def première partie bi. ma def sama morceau bees bi nga bi ma génnee muy miir naa ma play back ko xam nga ba samedi bi passé tamit ba mu joué penc mi demoon naa seetaan ko mais man léegi-léeg comme ni mu ko waxee xam nga man toog di ko seetaan moo a gënal fuuf yéeg di way taxaw di ko seetaan di jàng moo ma gënal fuuf yéeg di way waaw. ah Mame Bally euh, yenn katu euh, bitu borom gu mbagg boo gis boo ubbee xol ba magasin ca nekk tey waykat nga. est-ce que sa choix tamit du nekk ngay def première partie wu ki nga xam moom mooy sa frère Maria Sine may sa biige may sa biige maar moomu sama xarit boobu nga xam dama koo bëgg est-ce que def ay première partie tam du la gën a rek nga toog di ko seetaan. non comprendre de maa ngi def ay première partie am waaye dama ne la man personnellement vraiment toog di ko seetaan laay gën a gis njëriñ sax. wala sax laay gën a am envie toog di ko seetaan laay gën a am envie que di way à travers soirée mi laa wax mais yenn événement yu mag yi damay yéeg def sama prestation def première partie bi xam nga noonu la demee mais bon yàlla baax na ñu ngi ñaan moom tamit xam naa ne mu ngi may ñaanal fii ak ci kanam tuuti ma dem bay organiser événement yu mag a mag a mag muy ñëw di ma assister. Euh, Bambale ñu gis nii ci say son dafay bari trop ay yeneen xale yuñ koy reprendre parce que dama gis ni tout récemment sa son bu bees bi nga génnee am na yeneen nit yu ko way luy waral loolu te même texte lay doon même parole tamit lay doon. waaw xam nga côté boobu dafa doon loo xam ne vraiment dama ci wax a wax a wax wax ba sonn parce que hmm, gis nga man yàlla xam ne ne billaay walaay talaay bugguma tooñ te duma tooñ man bugguma tooñ man duma fekk ay gune. yoo xam ne dañoo bëgg a ci musique parce que man toll naa jamono joo xam ne bëggoon naa nit ñi xam ma xam nga bëggoon naa ku ma jàppale waaw man kon du fekk ay gone yoo xam ne dañoo bëgg ñu jàppale leen bëgg percer ci musique man may ñëw xam nga di leen wàññil yokkuma leen kon du xool su ma leen yokkul duma leen wàññi ba tax na comme ni mu la ko waxee def naa samay produit yu bëri ah am na nu mu demee ba ñu bëri jël ko moo xam ñeneen ak ñeneen whatever amul problème xam nga mais l' essentiel benn affaire xam naa ko man su ma demee bay reprendre son vraiment damay reprendre son loo xam ne mën naa ne da nga doon référence ci musique nga xam ne bu ñu reprendre sa son sax dinañ ne ndeysaan comprendre expliqué wala sax ma reprendre son boo xam ne mën naa ne lu jëm sama papa yi way nañ ko fi ba pare wala son Wally Seck xam nga parce que ñooñu ñooñu jiitu ci musique xam nga vraiment def fi lu ne ba tax na ñooñu nga xool ci ñoom reprendre ci ñoom la ñu gën a concevoir ka nga fekk ñoo xam ne vraiment xamaguñ leen nga bëgg leen jël seen produit di ko jël du ma def loolu non sérieusement. kon ça veut dire yow jëloo produit jàmbur mais sa produit lañ jox par contre. xam nga tamit xaw sax lan laa war a wax vraiment parce que loolu dafa may metti daf may metti parce que man mënuma concevoir tey jii man sérieusement chance bi ma am chance bi ma am bëri ay exemple ñaata way la samay bàyyi way fii ci dëkk bi samay mag ak yeneen référence yoo xam ne ñu ngi ci musique bi xooluma ci ñoom jëluma ci seeni texte reprendre ma ci ñoom may fekk ay gone di reprendre seen texte amul benn benn benn sens au contraire bu fekkee dëgg rek moo tax may wax man mii lañ doon utiliser man pour ma leen di teg ci yoon ñoom bu ñu doon dugal studio wala di dugal ay voix man maa doon taxaw di leen assister. ñan ñoo la doon utiliser pour nga leen di teg ci yoon. non bëgguma duma tudd tur waaye dèjà ñoom du ma tudd tur yàlla xam nañ du tur waaye man benn affaire xam naa. Bambaali wax balaa lee dañ ci dut baaraam. dama rek ma ne la. bëri na fi ñoo xam ne. billaahi walaay talaay man maa leen di assister laa wax bëri na fi ñoo xam ne du ma lim tur parce que. non du ma du ma lim tur tur yàlla xam ne du ma lim tur mais bëri na fi ñoo xam ne man maa leen doon assisté bu ñu taxaw studio di dugal voix wala def musique barki yonent yi bi billaahi wallaahi watallaahi man maa leen di assisté taxaw assisté leen def ko nii non defee ko nii defee ko nii defee nii man dépassé naa fu may fekk ay gone de sàcc seeni produit vraiment <laughs> kon loolu leer na nanguwul wax nag ba tey tur yi ñi mu doon assisté ñen lañu waaye mbali dañu gis ni yàlla suñu borom dafa dogal ne daf la dimbali ci côté musical parce que bu ñu nee kuy sa baay ñu ne ma Penda Seck waaye kuy sa nijaay ki nga xamante ne moom mooy Baba Amty di sama xarit di sama frère est-ce que yow sa def musique tamit du lu du loo xamante ne ni genre da nga ciy sonn. voilà yow yaa ngi may yaa ngi may rejoindre fu mu toll nii xoolal ku ci mel ni Baba Amty sama nijaay Baba Amty nga xam ne fii it bu fi génn. moo xam waykat bu mag boo munti doon it bu fi munti génn Baba Hamdy participer na ci def na fi ay ñaata it yoo xam ne toj na Sénégal ci ay texte ba ci ay mélodie lépp yow di nga am loolu dem di fekk ay gune di sàcc seen produit wala Baba Hamdy mii nga xam ne moom mu ngi nii ci studio ngeen ma fekk yàlla dimbali ma mu doon sama nijaay studio bi fayu ma dara li ma bëgg def dama koy def su ma ko nee tons dama bëgg nga jàppale ma ci lii daf ma ciy jàppale. mais est-ce que tamit liggéey ci studio bi nekkul jamono ji la yomb ci yow non mais ça a toujours été eh, ça ça a toujours facile parce que fii laa génnee sama album en 2014 fii laa defee sama album def naa fi album sept titres mais xam nga man bon si ñëw ma ci benn label man je veux découvrir man dama bëgg parcourir mooy maanaam explorer musique dem dem fii xam nga tamit bu ñu waxante dëgg studio bu nekk ku ci nekk sa touche dem studio bi dem studio bi dem ci kii liggéey ak moom dem ci kii liggéey ak moom parce que musique dafa yaatu tënkuwul fenn kese. kenn bu la toppee yàgg laa defar benn musique mu mu doon benn personne bi non benn touche boobu rek la ñuy dégg mais boo bëggee bëggee dégg ñu dégg beneen différence wala beneen sonorité non il faut nga changer di jéem a xool feneen ak feneen mais man fii mooy sama kër studio bii laa xam fii mooy fii laa soxe ko fii la bambal yi génnee xam nga noonu la demee. ca nii la demee saa su nekk seen uh, bile émission yaa ngi ci biir ñu ànd nag ak ki nga xam ne moom mooy Bambaly Seck Bambaly paraît-il que da nga am gelu jeeg. gelu jeeg. waa lii loolu. xamoo jeeg jeeg. gelu jeeg. lu ma déggee gelu jeeg. ah Yacine du sa gel. ku Yacine. xale bu jigéen bi ne sa clip Yande. Yande. non Yande. <laughs> Yande sama xarit la. Yande sama siste la. vraiment sama xarit la sama siste la. Bambale Yande jeeg la de. xam nga loolu est-ce que yow yaa ngi xool sa bopp di xool yande ay bambali mi ana ay mbokk mi ñu wutal ko juróom-ñaari mètre percal. benn affaire de mën naa la ko wax. ah ak maa yërëm damay seetu xool sama bopp yërëm sama bopp lu may def dama koy seet. <laughs> mani <laughs> yande sa gel <laughs> waa du sa gel xam nga yande moom jeeg la moom jeeg bu pare fa tubaar fa kàlla macha allah bambaal ah, <laughs> bambaali yande sa gel la waa du sa gel dañ leen di gis ci sinab yi da ngeen di bëre da ngeen di dóor dàqe da ngeen aayo aayoo bébé bébé tuuti. sama xarit la moom tamit sama sœur la ba tax na dañ defoon benn snap moo koy ko kokkali noonu bisu ko ci leex gars yi dugal ko ne dañuy génn déedéet ci leex la de non non déedéet. non xoolal image yi gars yi nañ gis image yi daal ba ok ñu gis sa dernière euh, bi nga xam ne moom nga mujjee def muy single bi nga mujjee def nii aussi moom tamit ça parle de mbëggeel ba ci nii nii nii ñu jàkkaarloowee maag yow da nga am amur bi moo tax mu neex boo amuloon amur bi doo am ambiance bi aussi tamit di woy li yee ñi ñi baax na xam nga di yeete parce que am na ñoo xam ne da nga leen di servir d'exemple ñuy xool ci yow ba amaale amour lépp amour la maanaam c'est important lan mooy sa dernier kàddu bi ngay tàggatoo ak askan wi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan. boo demee ba takk casque yi pour man lépp looy woy dafa war a doon loo xam ne danga koy sentir mu jóge fii bu jógee fii mooy dem ci xolu ki. boo xam ne doo playback duñ teg sa son live ngay def est-ce que lépp parole yëpp dina ñëwaat. machine boo jël rek gravé ci say yëf rek bàyyi noonu xam nga loolu c'est pas compliqué léeg-léeg di nga jouer ay soirée comme li ñuy wax des fois xam ba def ko son léegi la fait que nga koy dégluwaat di xool ndax baax naam baaxul ngay woo say nit say kilifa ñu koy déglu léegi yow déglu boobu muy tourner sa bopp tout le temps dem ba day nekk ci yow. dama bëgg rek ñi ñi xam ne Bambaly yàlla xam na ne xale la 22 ans dong laa am xel matul ba tax na di ma seetaan dama lay wax rek nga jéggal ma bu fekkee dégg nga fi dara loo xam ne xaw na la déranger parce que xel matul te en plus ay xale lañu comprendre nga. Euh, di sant sama soppe vraiment. Ah, internet yi di leen wax ne kontaan nañ ci ñoom sénégalais yi ñu nekk ci diaspora bi ñëpp jàppal nañ ma dara nañ ma jéggal man jàppaluma kenn dara waaw di la sant yow mii tamit vraiment tiit na <laughs> dama boo xoolee man xam naa ki may seetaan moom dina ne bambali daa mel ne lu ñu kii esaat du dara dama tiit rek vraiment <laughs> maa ngi soog a waaw ba tax na daal bon sant naa leen gërëm naa leen yow moom moom jàppal na yow yow du yow moom. loolu dafa am fit da nga jàkkaarloo mu ma lay jox li nga soxla ay kii tapet la ndekete <laughs> ay ci nii lay demee contentement ak mbégte ci moom mi nga xam ne Bambaly Seck di sama rakk dama ko bëgg sopp ko Mandiaye Seck sama doom la moom ni mu nekkee sama doom ni lay demee di wax ni ngeen jàpp ci jeune talent li muy def waaye cant ak ngërëm day ñeel ki nga xamante ni moom mooy frère am àndaloon di Idali di gërëm suñu charge de production di di leen sant di leen jaajëfal bu baax a baax ni lay demee nekk rek ci seen bile émission yaa ngi ci biir biir Seck lool Ba Mali Seck sa doom laa jàkkaarlool tey question yi nga xam ne posé ko dama ko wàññi ndax dama ko <laughs> dama ko yërëm ay ca gros bisous à vous